mbokki internet yu Africa Global Express TV dal leen ak jàmm dàq élection présidentielle ba atum 2026 Aminata Touré daal ne loolee moom du ko déggees ginnaaw rumeur yi nga xamante ne nag mu ngay daw daal ne élection présidentielle yu atum 2024 yi la ñu dëgmal boo moytuwul danañ ko dàq ba atum 2026 Aminata Touré daal ne loolee du ci dégg ndaxte nag élection présidentielle yooyee dana daal di am ca dat wa nga xamante ne jàpp nañ ko muy février 2024 bu ko defee bépp candidat boo xamante ne bëgg ngaa taxaw sam samp sëb nënd ci langue politique gi ngir nek président de la république bu sénégal mu dal ne su boba nga dal di taxaw présenter sa candidature ñu dal di jëm ci ay élection mu dal ne ñepp ci bokku seuf njitu réew mi président de la république Macky Sall mu dal ne nak jamono jojé disposition bi nga xamante nak constitution bi dal di nakoy jël lolé dafa dal di nek lu leer nañ report ay élection présidentielle mu dal ne lolé bu ko xel sax nak pas di xalaat ci page facebook am la ko daal di bind mom mi nga xamante nak mom mo fi ancien chef bu gouvernement gouvernement bi moom nag daal di nay fixé li nga xamante ne moom moo di ay exigence am ca waxtu boobee rek muy daal di sàkku ci procédure judiciaire bi ñu daal di koy gën a intenté waxtu boobee nag muy xamle daal di ne ñi nga xamante ni ñàkk nañu seenu ko bakkan ci bis bi la génn ci ay manifestation mu daan ne plainte yi ci niveau national ak international war na mën a gaaw daal di situer responsabilité yi bu ko defee rek fukk ak juróom benni doomu aadama yi nga xamante ni c'est confirmé ni génn nañu àddina ak koor ya nga xamante ni gis nañ ko ci hôpital dalal jàmm ma loole ñu daal di ciy indi ay mbir yu leer nañ bu ko defee rek ñu daal di xam doom yooyee ana ñan ñoo leen daal di rey te teguñu ko fenn kaddu yooyee nag nga xamante ni kii di Aminata Touré nee na ay acte yu barbar la war na nag ba jamono ji mu ngay sàkku ci plainte nationale ak internationale yi ñu daal di gaaw daal di ciy am ab retour waaye élection présidentielle yi nga xamante ni nag nee nañ dañu koy dàq ba atum 2026 kii di Mimi Touré daal ne loolee nañ ko yëkkatiwaat daal di koy teg ci suuf février atum 2024 la ñuy daal di amal ay élection présidentielle fii ci diwaan diwaanuk Sénégal benn élection kenn dàq ko fi muy kàddu yoo xamante ni nag Mimi Touré moo ko daal di yëkkati ndege ni tey ki suba ca page Facebook am te nee na candidat dinañ daal di bokk ca googule jongante sauf ki nga xamante ni moom moo di njiitu réew mi président de la république Macky Sall ndax constitution mayu ko ko